judiciaire et nag ko xé fi si Sénégal xel day dem si euh, ki nga xamné euh, moy Ousmane Sonko. Hmm. l'incontournable. <laughs> l'incontournable. Hmm. man né na fi Sénégal hmm. Nous def émission ba mu jeex sa te waxoo si ki nga xamné moy Ousmane Sonko. da nga tuddu turam de au moins dix fois. Ah, parce que. il est comme vraiment le le devant de l'actualité. oui donc euh, les dossiers politico-judiciaires c'est c'est juste.

kon euh, le développement bu rëy la parce que duñu ñu du 2021 parce que foog ñu foog ko sax touti da ci bax 2021 ba légui ñu ngi tongal Ousmane Sonko di ko ci dossier de viol et de menace de mort. finalement ñu mujj si. Euh, ñu dem ñu dem ba ci juuru àtte bi ñu bàyyi len ñom kenn ak seen tribunal. muñu mm. sax statuer ci qualification wu viol ak menace de mort. Mm. si bien que dañu écarter qualification boobu. ñoom ñu ko bëggoon rendi ci loolu buñ ci doon dugg di daanu parce que mun nañu ko ci condamné. Hmm. amuñu ci dara. alors ñoom seen bopp nag ñu ni la lii du jàll nañu dindi qualification bi parce que bu ñu duggee ci viole ak menace de mort rek dañuy daal. léegi ñu ni corruption de la jeunesse. sa hmm. genre yi dem di xool loolu mooy lan. <laughs> ba xam ne depuis depuis Mathusalem depuis Descartes lañ ci gën a des siècles lañ ci gën a condamné hmm. xam nga. alors euh, euh, loolu vraiment je vais prolongé je ba ci recours bi nga xam ni la état bi def euh, ci àtte bi juge Sabassy def. pourquoi mm. pourquoi ma que ci 2021 début dossier Adji bi ñu c'était une affaire privée hein, mm. entre deux personnes. Mm. yow mi sax wax nga mako fini mais mais c'est une affaire privée entre deux personnes et tout ça. c'est vrai ça c'était les éléments de langage qu'on nous servait à ay maintenant cette affaire privée dem na ba foo xam euh, remiser nañ ko au placard. Mhm. viol ak euh, menace de mort mais on voit l'agent judiciaire de l'État état. Mm. ndawal état. mooy khataray pour ñu xagn un opposant mu bokk élection. té doyul agent judiciaire bi dafa am avocat bu ko taxaw. Mm. Nous ni Ousmane Sonko mu nek ci liste nañ ko xagn mu parce que dafa am condamnation définitive te avons xam ni contumax ku ñu arté ci gannaawum buñ ko jappé ba la Contimax est anéantie de plein droit waxu Ismaël Madior Fall euh, euh, euh, li li loi bi wax mm dama le Sénégal c'est bien ñu dégg Ismaël Madior Fall nous muy renier boppam. mais nous euh, gis nañu dem daw nañu le code de procédure pénale parce que la connaissance et l'information sont à la portée de tous C'est une information léegi dafa am valeur formative. des former nit ñi. léegi ñu bëri xam nañu ni article 307 def ni contumace bu ñu ko jappé la contumace anéantie de plein droit. dañ ko war a àttewaat te tribunal bi ko àttewoon exactement moo koy àttewaat du loolu la ñu wax. wala boog mu bind lettre de non acquiescement buy wane ni àndul ci atté bi nga atté. àtte. Mm-hmm. te ñaar yooyu yëpp am na ci dossier bi am na lettre de non acquiescement am na arrestation kon lan moo des ci condamnation bi nërmeelu na. Mm. waaye état bi nee nañ non nërmeeluwul dañ ko war a dindi ci liste di agent judiciaire de l' état nekk di xeex sur le plan juridique pour teg loo xam ni du yoon te newoon nañu dossier ñaari nit la de te au début dañu ne woon lii complot la mm-hmm. pour tere Ousmane Sonko bokk ci élection waa léegi loolu mm. parce que agent judiciaire de l'état lu ci yoonam dossier Mame Niang procureur lu ci yoonam nañ diffamation entre citoyen Mame Niang la ak ak citoyen Ousmane Sonko mm-hmm. c'est pas une affaire politique bu leen ko ñoom mm. waaw procureur ñëw dugal ci ñaari chef d'inculpation mm-hmm. ñu wax mu interjeter appel procureur gannaaw gi moom ñu toxal ko foofu yóbbu ko cour d'appel bi war a àtte appel ba mu interjeter moom moo ko àtte moo présidé euh, euh, loolu a affaire privée entre deux L'Olive, c'était pour tere Nous boc élection mais LV9 est à plus de six mois avec sursis mm. pour autre cause Gnabu, bi un pour tout autre délit à plus de six mois mm-hmm. avec sursis mais nous sommes six mois exactement les condamné différent de plus de six mois il n'a pas plus de six mois il a six mois donc il n'est pas déchu de ses droits mm-hmm. non sur la base de ce moo ci Ok donc contumace bi daanu ñu ci top, mais nous ci am ndam Motax, suba le 17 le 17. en tout cas la cour suprême moom. na xel yeb dal ci ne yoon yoon la. mais ki est dox bu ñu carrément. Euh, euh, du ma du ma état peut-être le régime du président Macky Sall fu mu jaar Ousmane Sonko depuis les événements de mars mm-hmm. dernier. gis mm-hmm. nga décision bi euh, de Shore bi nga xamné euh mën nañ wax né carrément gay yi ko li nga xamné ne respecté gis neen ñom dem neen fee ça ci haute justice de CEDEAO. Mm-hmm. gis nga selon les indiscrétions Aïssata Sall Sall né na même sax buñ ko joxé en faveur de Ousmane Sonko ñom duñ ko respecté Ousmane Sonko ju japp ko def grève de la faim mu mo nek je pense troisième fois muy def ñi nga xam mo nek nekk de la faim mhm. finalement ñu jëlee ko hôpital principal yóbbu ko fi nga xam mo nek Cap Manuel gars aussi langamu ci euh, li nga xam mo nek nekk euh, DGE ak Sénat gis nga sax ce qui mhm. s'est passé ak Sénat mhm. est-ce que kon euh, état bu Sénégal il faut jaar ak Ousmane Sonko ba tey depuis l'avènement de Pastef gis neen a dissoudre neen parti. il faut mm-hmm. toll nii. Euh, cour suprême <laughs> mm-hmm. <laughs> voilà. selon la loi. Euh, mm-hmm. cour suprême dina yaakaar nga ni dina atté en faveur Ousmane Sonko pour mu bokk à ces élections. non pas en faveur de Ousmane Sonko mais en faveur du droit parce que quand même cour suprême de juridiction buy buy connaître du fond des dossiers. On des jugé sur la forme et ndax respecté les procédures. Il n'y a pas de vice dans la procédure le code de procédure pénale a été respecté les droits de la défense et de la partie civile ont été respectés est-ce que le jugement a été fait souvent une date fatidique pour Ousmane Sonko parce que déjà il paraît que L29 le Bincor ko euh, hmm. Ousmane Sonko d'autres mënati beaucoup. D'autres mënati euh, beaucoup élection au euh, Sénégal. L29 est-ce que vous avez L29 mënul mënul mënul dal ci mënul dal ci kawam. ah euh, amna na juriste yi nga xamné euh, L29 ragal né ko trop gay appliquer euh, appliqué. non dañu lirul la différence entre 6 mois et plus de 6 mois. Hmm. xam nga dañu ni pour tout autre délit a une condamnation de plus. Mhm. de 6 mois avec sursis. est-ce que 6 mois égale plus de 6 mois non. a hmm. une condamnation donc supérieure à 6 mois. 6 mois, ce n'est pas supérieur à 6 mois. 6 mois, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Donc, lolo, mouninji, LV9, bounkolal. Contumace, c'est anéanti de plein droit. Donc, le diam, Inch'Allah, Cour suprême, mounul def loudoul dire le droit. Ak mm. lou Macky Sall ak ay nitam ak ay agents judiciaires de l'État. Parce que nous avons porté recours. Te dafa ñaaw, État, organiser dialogue national pour permettre à deux acteurs nous inclure l'un dans les dans le processus électoral muy Khalifa Sall et Karim n'est-ce pas. Mm-hmm. loolu ñu ngi koy fàttaliku yàggul. Mm-hmm. ba loolu indi sax réeroo entre Khalifa Sall ak wa Yewwi Yewwi Askan Wi. Mm-hmm. Hein? léegi au même moment nous nga mën a que nous xam ne yoon tere na ñu enfin pas tous Khalifa Sall plus que Karim parce que Karim Wade sax un terrain ko mu bok. mais Khalifa Sall moom yoon est na ko mu mm. parce que Karim je je précise que ba mu defee cinq mois cinq ans le le contrainte mieux il est éligible il est électeur Khalifa Sall a un problème donc Karim c'est vrai il a il a le problème de sa condamnation pécuniaire parce que Binkotek, c'est trop corsé. Mm-hmm.